bi ñuy wax Synpics maanaam bi njabootee journaliste Sénégal yëpp maay seen chargé des relations extérieures et des régions. Euh, voilà monsieur Dia tey dañ laa seet si moom pour waxtaanee li nga xam ne moom moo di jamono ji ñu gis ko ci presse bi gis ko aussi tamit ki nga xam ne moom la président de la république wax ko ci conseil des ministres bu semaine passée waxaat ko ci semaine bii nga xam ne moom lañ génn mu jëm ci wàllu presse bi ñu ngi rek ñu assainir la presse tey waaw bon mbirum euh, assainir la presse bi euh, mun naa ne président daf ñu ci fekk daf ñu ci fekk parce que ñun euh, jógoon nañ bu yàgg pour. jóg ci mbirum assainir presse bi daal parce que presse bi léegi booy xool nit ku nekk day jóge fu nekk ñii di ay animateur ñii di ay bon du n'importe quoi daal ñu naan ay journaliste la ñoo yooyu loolu dafa dem a dem ba indi ay dérives yu garaaw a garaaw a garaaw ci suñu métier bi bon ñu ngi si nag euh, di assenir parce que am nañ code euh, de la presse bu bees moo code boobu wax na euh, kan mooy journaliste bi ci code bi nee nañ journaliste bi mooy ki nga xam ne revenu maanaam li muy gañe yépp ci presse lo koy amé Té koku aussi warna don doon nit ko xamné dañ koy mu jóge ci ay école yi nekk ci dëkk bi nga xamné ne ñu ngi former ay journaliste yor diplôme wala ko xamné def na fukki at ci ben maison de presse koku mën na prétendre tay ji mën nañ ko accepter ne journaliste la waaye légui dañu tollu muy animateur yi ku nekk daal ku nekk foo jógee rek ñëw ne journaliste nga léegi nag euh, dafa jot à ce que ñu assainir presse bi ñun jéemoon nañ ci ñu ngi si doon jéem di si def ay yu am solo mais fi mu nekk nii euh, le chef de l'État dafa ne dafa bëgg a mettre en place benn dispositif boo xam ne dafay réguler les réseaux sociaux ak. Euh, ni koy waxatee sax euh, bon réseaux sociaux internet ak site en ligne YouTube tout leen da réguler mais xam naa ne nag du doon loo xam ne euh, lu yomb la parce que <laughs> réseaux sociaux yi bon xaw ma bon réellement ce que lan la ci loi bi wax am benn loi nag bu fi nekk mais je pense que ça sera très difficile pour ñu réguler ko. D'accord, euh, Ce sera très difficile pour vous réguler. On peut réguler la presse parce que moi, en tant qu'entité mhm. on dirait que quelque part c'est comme si la presse n'était ko beaucoup parce que la presse lui avec ses démembrements et tout est en mesure de réguler presse

assainir la presse mu ngi fi yenen organisation tamit ñu ngi fi bo jógee ba da ngay assainir euh, la presse acteurs yooyu yëpp da nga leen war consulter ba paré bon ñu tok nga laaj leen problème bi fan lan moy problème bi dina ñu expliquer la buñ la expliquer yëpp nak bon ñun déjà déjà rek ak euh, nouvelle carte presse bi di bi ñu wara a parce que commission bi. Euh, mettre nañ ko déjà sur pied bon peut-être amna pandémie bi ak euh, mbass mi fi nek motax tax euh, ba légui liguey bi avancé wul mais déjà lool rek début la woon pour ñu xam parce que pour ñu xam qui et qui pour ñu joxé journaliste yépp sen carte de presse ñi ko yelloo la wax nak ñi ko yelloo yépp ñu jox leen sen carte de presse dinañ mën a am à peu près xam ñaata journaliste mo am. ak nit ku jógati di ne journaliste nga te nekkoo ko ay daan yu lay dal moo jóg nag ne dañuy réguler kii presse bi tout resement rek association bi ëmb affaire yi euh, kii numérique yi jóg nañu génne communiqué ne ñoom liñ ci gis dañu gis ne dañu bëgg euh, limi qui quoi euh, la liberté d'expression atteinte la liberté d'expression ñom dem waaw expliquer bon peut-être comme opposant yeeg ñi nga xamné dañu contre nguur gi télé yi tamit journaux nga peut-être euh, ragal nañ buñ fa journaux état publicité les ñom euh opposants yoyu ci réseaux sociaux pour exprimer véhiculer message té boy sax réseaux sociaux yi si leen di ci am si audience président si si sama ak si sama opinion si sama dafa gis ne affaire boobu menace la te xam nga réseaux sociaux yi moom toll na foo xam ne il suffit benn clic rek adduna bi yépp xam nu mu demee te ñu ngi jëm ci ay échéances yoo xam ne élection ay 2024 mille te déjà kii yu bëri mën na commencer di organiser wu si réseaux sociaux yi yi nga xam ne ñoom mënuñu ko contrôler xam nga loolu tamit ça pose problème nit ñi nañ ci bàyyi xel nañ ci bàyyi xel bu baax a baax a baax mais daal euh, li ma la munti wax presse en ligne bi moom pour assenir ko dina xaw a metti dina xaw a metti trop. dëgg la dina métti encore une fois ci dina métti dina métti parce tey soo xoolee c'est comme si que ni la la moom la wax. Euh, le parent pauvre parce que tey boo xoolee ñi fi nekkoon parce que tey euh, su ma juumalee démb rek am na ko wax ci une des télé yi nga xam ne ñu doon def émission par rapport ak euh, code de la presse beeg assainissement presse beeg et tout ça presse bi tey dafa nekk koo xam ne comme si euh, ab doom la yoo xam ne amul ndey amul ko jël ak ko parce que tey grand yi nekkoon ci presse bi na jàppale presse bi pour que presse bi mën a am image bi nga xam ne moom la nga xam ne woon démb tey soo xoolee boo demee Sénégal grand yi bari léegi ñu ngi biir Sénégal ñeneen ñi c'est les c'était télé ñeneen ñi jël nañ leen dugal leen ci ay dire que euh, on a un ministre boo xam ne ci euh, magistère Abdoulaye Wade il était le plus virulent il était le plus poignant tey ji nga ko mi ngi menacé ci biir est-ce que nekkul présentement la presse reflète image bon moi je pense que euh, li nga wax yooyu yëpp la parce que tey euh, normalement ak les grands journalistes là sphère yi ñu occupé ci état beeg yoyu ak ci yenn institution yoyu euh, journalistes yi ñu won am problème mais man je pense que li ma gis ci sama jàngat peut-être ñooñu dañu ils se sont servis de la presse pour atteindre euh, pour am objectif buñ doon viser ba ñu demee ba jege nguur wala yenn institution yi problème presse bi intéressé pour leen parce que actuellement tay le président ay anciens journalistes rek yu mag ñoo ko wër mais ba léegi le problème de la presse xam nga demeure kon dama ne presse bi euh, journalistes yooyu presse bi mënul compter ci ñoom fi mu nekk nii dafa am benn nouvelle génération journaliste bu juddu ñooñu ñoo war a jël xeex xeexal seen bopp bu ñu xaar kenn ci lenn xam nga loo gis ay boo xeex moo koy xex ba jot ci sa ak ak sa yelef lo gis dal lu nek nit dañ ko wara xex xeex te fi mu nekk nii Synpics ñu ngi ci dynamique bobu fi mu ni euh nouveau code de la presse bi ak convention collective bi fexe nañ ba le chef de l'État signer les décrets d'application ak décrets d'extension yi dal manam léegi convention collective bi ñepp ko war muy privé muy ki ñepp dañ ko wara appliquer léegi fi mu nek ni gis man nak lenn nak moma ci xawa a touti moy président bi njëkkoon na jox ay directives ay ministre surtout ministre de la communication ñu togat en retour le président dellu wat di joxe ay instructions Légui mu ministère de la communication dañ ko dessaisir ci affaire bi jox ko ministère du travail Lolu lan lay firnel? lu muy que moy ministère de la communication liñ ko joxone liñ ko joxone travail biñ ko joxone defu ko je pense que aussi pour un pays qui se respecte pour un chef d'État président de la République qui est la première institution de ce pays

dafa jot à ce que ñu assainir ko mais gis nga si assainir presse boobu les patrons de presse affaire yi arrangé wu leen xam nga il faut gis nga nit dëgg bu jotee rek nañ ko wax patron de presse bi affaire boobu arrangé wu leen ministère communication ba mu wootee woo les acteurs syndicalistes ici ak affaire yi demee noonu pour euh, nouveau code de la presse beeg convention beeg tout ça ak affaire demee noonu mais patron de presse yi dañu buddee kenn gisu leen fa muy wane ne ñoom euh, code de la presse bi arrangé wu leen ak euh, convention collective arrangé wu leen ñoom at kii bi ñu joxe woon ñu koy waxatee sax euh, argument bi ñu joxe woon dañu ne ñoom convention collective bi mënuñu ko appliquer tant que fond d'aide bi bi war a remplacer aide de la presse bi mettre ñu ko en place ba pare parce que xam nga léegi bu ñu bon je pense que affaire bi du duñ ko mën appliquer léegi mais bu ñu demee ba ci biir aide de la presse day disparaître léegi fonds d'appui moins am fonds d'appui boobu nag pour euh, journ euh, benn euh, pour bénéficier aussi dafa am ay critères la laaj soit di nga en règle ak IPRES di nga en règle ak caisse de sécurité sociale di nga nekk en règle ak glisse euh, masse glisse gris salarial bi gars jël teg ko en vigueur di nga aussi nekk en règle ak defar ay contrat yu baax yoo xam ne au niveau de l'inspection du travail xam nga loolu booy xool arrangé wul bu arrangé wul patron de presse yi moo tax ñuy def un peu de dilatoire bon bu ñu réuniré tey ñom sommes ñëw etc. etc le ministère du travail par la direction du travail dina convier les acteurs euh, les patrons de presse euh, ak syndicat mais syndicat bi ñëw dina élargir yenn élargir représentants des secrétaires généraux il faut togal mbooleem mbooleem organe de presse ñooñu euh buñu ñëwé dinañ waxtaan wax ndax appliqué nañ ki bi sen société wala det. travail boobu bu jéxé état bi dina lancer des inspecteurs euh, les inspecteurs euh, les qui euh, inspecteurs yi nekk inspection du travail dinañ wàcc si rédaction yëpp déglu patron bi déglu tamit euh, employé ñu xool situation bi xam nga ni mu demee mais daal pour le moment moom assainir presse bi dafa jot xam nga ñu assainir presse bi parce que léegi euh, bu yàgg ba doon journaliste fierté la woon mais léegi ku nekk rek jóg ne da ngay def euh, da nga da nga journaliste laa xam nga ci plateau télé yi ñuy jël ay animateurs à la place des journalistes ñu naan dañuy animer ay débat moo tax gis nga rek dégâts matériels yi nu ñu baree. donc dérive bi wa la. waa du presse en ligne bi. ci tele yeeg rajo yi même chose. presse écrite bi daal la ñu xaw a épargner tuuti. parce que presse écrite bi moom xam nga rek loo jàngul mënoo ko tari. presse écrite bi moom gis buuxante bi bariwu fa waa non loolu xam nga loolu day am surtout mbirum kaa kaa Sonko bi teew suñu kanam man je pense que journaliste balaa ngaa bind dara da ngay vérifier say information ak say source mais li ma gis surtout ñu xaw ko développer ci kaa Sonko bi Sonko ñoom ñëpp dañ ne euh, bon xam nga présomption d'innocence am na nit ki. mënoo jóg rek accuser ko nii da ngay xaar si si base yu leer xam nga nga accuser ko mais dama gis dama liir yenn si yenn sites yi quand mais dama tiit boo liiree yenn sites yi bañ dem naan waaye ndikete Sonko li muy kii yëpp nii la mel mel ni ñoom dañu am ay preuve palpable ne Sonko moo def liñ koy jiin xam nga nañu delluwaat tuuti ci orthodoxie journaliste tu vois nit ki. Euh, lu ñuy wax rek nee nañ toujours journaliste bi buy bind benn affaire bu bon ci nit nit kooku na jël place yi na jël papaam teg ko kooku ba xool ndax bu nekkoon papaam dina ko kii ak affaire yi demee noonu xam nga dafa dafa garaaw daal dafa garaaw léegi fi mu nekk nii euh, nit ñi dañuy jëkkante ay scoop ba tax ñuy dugg léeg nga gis ñu rey fi nit boo xam ne deewul wax fi ay information yu kenn xamul di diffamer nit ñeek yooyu dafa war a dàkk loolu nak lenn mo koy mën indi code bu bees bi ñu appliquer ko buñ ko appliquer ba commission bi joxé carte euh, nationale journaliste ku fa déposer ce dossier ñu jël ñi nga xamné ñoy journaliste jox leen carte presse bi ñi ko nekkul ñu xamné ne nekkuñu ko ñu xam seen bop

Euh, je pense que euh, journaliste yi li ñu waroon def euh duñu xey rek ministère bi jox ñu ay chiffres rek ñu ñëw balancer ko ci kanam nit ñi moi je pense que waroon nañ mëna def ay investigation pour xol réellement ñi liñ ñuy wax amna wala amul bu fekkee ne amna aussi ñun suñu côté sensibiliser rek lañu ñu mën ak porter donner une information juste et vraie mais pandémie bi euh, ni ko nguur gi gérer ci volet communication bi baaxul parce que dem nañ ba ba nit ñi bari gëmuñu ko te xam nga nak nit mom lu mu gëmul ko forcer par force ne ko di nga défé ni wala di nga défé na lool moy problème bi.

te respecté wuñu mesure barrière yi ñu attirer attention bi xam nga mais euh, aussi couvre-feu bi sax waroon nañu mën a les journalistes ñuy dem di def yenn reportage nuit, xool ndax euh, gars yi ngi respecté et cetera et cetera parce que aussi jamono couvre-feu lañ nekk ça ne veut pas dire que ñëpp a respecté mesures yi parce que la preuve gis nañ fi benn ministre tout récemment bu ñu bu ñu jàpp euh, te couvre-feu la doon daw te c'était un ministre euh, vraiment de la république dégg nañ tamit yeneen ak yeneen ay scandales des am moment de couvre-feu etc. etc. et cetera quoi bon de toute façon moi je pense que journalistes yi ni ñu taxawee ñu ngi joxe information bi à leur portée inventé wu dara léegi nag volet bi euh, ñun affaire vaccination yi ñuy wax ne dina ñëw après ku non bon man moom personnellement hein <laughs> personnellement euh, affaire vaccin yi du ma ci prononcer gum léegi dinaa ko def wala du ma ko def mënaguma ko <laughs> wax en public tu vois mais daal communication bi ci war ah buñ ko ci deful buñ ko ci deful ah go meuna dinañ bari ay candidats de te man limay wax rek toujours comme président de la république mooy première institution ba mbas mi feeñee moom la njëkk gis mu ñuy jàngal nu ñuy raxasoog nu ñuy lolo. ah je pense que nag euh, bu vaccin bi ñëwee moo war a woo journaliste yi yëpp woo institution yi yëpp yu nekk Sénégal ñu ñàkku ci kanam ñëpp journaliste yi wone ko pour wane ne président ñàkku na ñee yëpp ñàkku na nit ñi mën a ñeme xam nga ñëw ñëw ñàkku te man amna naa confiance ci suñu corps euh, sanitaire quoi fi Sénégal te je ne pense pas que ñoom dinañ nekk ay complices lo xamné ne ëllëg day lor réew mi loolu man daal xalaatuma ko daal. d'accord monsieur Ndiol ni ngi lay jajeufal ah. comme couvre-feu oblige. Hmm. yamale émission bi tey rek ba beneen yoon dina am nga des merci wa man damay remercier d'abord euh, suñu planète 24.com Euh, ni ma gisee ay xale yu xam nu ñu bëgg la te di ko def dama leen di ñaanal euh, ñu réussir parce que lii c'est une très bonne initiative ngeen dem di wax ak nit ñi pour di yee nit ñeeg tout ça ak affaire noonu yal na boo leen fi jógee lii gën a fu yàlla ful ko ba mu yegg foo xam ne yéen mu lu kawe seen jot. dama di remercier bu baax ci sensibilisation bi et tout ak liguey bu rafet bi ngeen di liguey man je vous suis hein honnêtement je vous suis merci beaucoup.